yu euh, marché yi euh, dund na ba dem fekkewul enquête boobu mhm. ndax yow yaakaar nga ni enquête dina am ci dossier boobu ak lan mooy sa xalaat ci euh, mbirum passeport diplomatique yi ñooñu ñëpp benn lool bi la moo di jël nañ justice bi def ko ci seen boor téye ko di ko xeexe opposition bi su fekkee ne opposition la bëgg a dal ci seen kaw dinañ ko jël dale ko ci ko opposition bi li dul dëgg te looloo gën a mën a taal réew gis nga justice bu dafay équitable parce que suñ ko deful rek dafay équitable dafay indépendante parce que tant que mu ngi féete ci seen boor dara du am man processus su passeport yi yëpp demuma ca gisoo ma ci parce que ñoom rek ñoom la rek feneen fu mu doonoon ku ne la preuve en ñañ ca jot a tudd rek ñu nga leen téye feebar nañ nangu nanguwuñ leen sax may liberté provisoire waaye ñoom ñii nga xam ne ñoo dugg ba ci biir ñu enquête ko xam ko. ministre ba dégg naa ñëw ba ci assemblée naan ko regretté naa torop mu dal ci yéen muy un aveu de taille donc loolu sincèrement ñoom la te tant que mu ngi nekk ñoom dara du ci dikk te loolu moo tax ñu am fitu def ko gis nga fi mu nekk jamonoy impunité lañ nekk ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci opposition ñu teel a xam suñu bopp lañ man de su ma su ma xëyee maa ngi naan sama waa kër takk leen seen ceinture bu ngeen di dawal mm-hmm. marqué leen stop dee leen seet arrêt yi. lu ko mooy dee leen seet feu rouge yi parce que duñ leen may dara. Mhm. di ko wax samay chauffeur bala maa dugg ci oto bi dinaa ko ne vérifier say pièces parce que ci boobu lañu boobu xat-xat la ñuy vivre ñi ci des lu ñu def jig na leen lu ñu def baax na ci ñoom. loolu moo mooy Sénégal tey. mais yéexaay bi tamit ah, yéexaay bi parce que summi nañ leen bu yàgg. jay na ba summi nañ seen euh, immunité bu yàgg. boobu léegi dara amul alors que bi mu nekkee Ousmane Sonko ñaari fan ñett ñu patam patamee ko ñu patam patamee ko tënk ko yóbbu. waaye mais ña ñoom dara sax nag ñu jël leen tey. des enquête. te juge ba tey kii wu leen de convoqué wu leen. comme du leen convoqué parce que loolu moom moom moo metti ci dëkk bi te loolu. man bu ma doon waa curis dinaa seet ingrédients yi nga xam ne mooy def cocktail bi nga xam ne moo nar a taal réew. molotov waaw parce que euh, euh, def ingrédients yaa ngi dajaloo. Mm-hmm. dajeeguñu nag. yal nañ ci yàlla musal mais ñu ngi dajaloo mhm. élection locale yi suñ ko defee ba pare ba mu jaar ci yoon dina nekk benn ingrédient bu dañ waaye jaaragul ci yoonu dañ parce que nit am yëfam nga ne carrément ba pare nag ay préfet ñëw taxaw di seet kuy bokk ku dul bokk am na sax ñu leen di ñu leen di ñu leen di di ngat naan est-ce que du préfet yi dañoo bëggul ñenn ñi ñëw ci pouvoir bi parce que dañoo bokkoon ci ay problème mu suuf walla dara waaw léegi list boo xam ne liste bu ñu woon baaxul ñu dem cour d'appel ni baax na jugé ko waaw lu ci yoonu préfet ba mu naan day day day def pourvoi en cassation ah. ay intérêt la waaw yan intérêt ñoo menacé loolu koy c'est un aveu de taille <laughs> loolu mooy man maa ne Marie Louise mii du bokk Pape ñu ngi mooy bokk parce que Pape Fara ñu ngi laa diilal Pape Fara ñu ngi laa waxal Pape Fara ñu ngi moo baax ci man moom moo war a nekk maire mais Marie-Louise bu ñëwee mën na càmbar lu ma neexul donc du ma ko fi def seen intérêt yan lañ mën a sa lu ci seen yoon ñoom courroie de transmission rek la donc te ba léegi ba fi may waxee yow des na ay Mbour Mbour département commune yooyu nangu nañ ñu appliqué ko Saint-Louis ñeent yi nga xam ne gañe woon nañ ko ñaar ñi ñooñ appliqué boo demee Bambey ndondo ndee nañ du ñu jël seen liste ba léegi donte ni gagné nañ procès bi depuis le quinze euh, bële passé euh, ci cour euh, d'appelu Thiès. Lambaye la même chose ñoom ñëpp autorisé nañ leen mais ba ñu demee yóbbu arrêt provisoire bi jox ko préfet bi préfet bi nee na du ko jël. Mm-hmm. arrêt définitif arrêt définitif gisuñu président tribunal ba nee nañ mënagul ñëw ba signé ko mais ki ki trahir Yewwi Askan Wi maatam président recevoir nag Djibril Ngom